أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme nañ ko baaxoo def ci talaata bu nekk ci waxtu wi ñu delluwaat daje di fàttalante sunu diine di fàttalante téere bi nga xam ne moom mooy kitaabu tawxid xam ngeen ne ñoo ngi ci dars bu mujj tey ci ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين sabab bi nga xam ne moo tax doomu aadama yi weddi yàlla ak bàyyi seen diine ñu ne dara waralu ko lu dul ëppal gu ñu ëppal ci mbiru nit ñu baax ñi loolu tomb bi ci mujj tey fukki mbir la ginnaaw bu ñu jàngee fukki yi paase jàngoon nañ benn ba egg ci juróom-ñeenteel tey ñu ngi tàmbaleel mbirul fukk ak benn bi ba egg ci ñaar fukk mbiru fukkeel ak benn bi tey mi ngi tàmbalee mudaratul ukuf ala al qabr li ajli amalu saalih bokk na ci li tax nit ñi weddi yàlla subhanahu wa taala bokk na ci li tax loolu mooy bóof gi nit ñi bóof ci bàmmeel yi néew na tey ab dëkk ci dëkk yi nekk ci goxi Sénégal yi dëkk booy dem lu dul kilifa diine ga ba mu faatoo dugal nañ ko ca biir jàkka ja suul ko walla ñu suul ko ci xurumu jàkka ji li wër jàkka ji su ko defee nag nit ñi dañ fay yendoo ka bóofa ka fanaan aka barkeelu te loolu lu mu leen di jural mooy ñu weddi yàlla ñu ëppal kon sabab bi tax tey jullit ñu bari mënuñu kennal yàlla bokk na ci li ñu li ko waral mooy bàmmeel yi ñu bóof ñooñu di bóof ci bàmmeel yi lan lañ jàpp ñoom loolu ñuy def lan la mooy lu baax la ñuy def ndeysaan koo ne waa yow lii nag mu ne waa lii lu ci nekk ah kii kii kii jaamu yàlla moo fi nekkoon kii waayu yàlla la kii nitu yàlla la kii nitu diine la ndax man toog bi may toog fii di di raay wala ah vraiment yéen seen diine dafa ëpp yéen da ngeen a ëppal fekk loolu li muy jur mooy da ngay ñàkk tawxiid dañuy mujj di ñaan ñooñu dañuy mujj di xettaliku ci ñooñu tey ñii ngay dégg ñuy xettaliku ci ñoom ñépp kenn dund ci ñépp a dee mbokk yi su fekkee kii dund moo mënta xettali aji dund jumu bokkalul bërëb bu ñu nekk te waa jaa ngi koy woomee mënu koo xettali mas sama ku dee te li ci gën a doy waar mooy léeg-léeg nga dégg ñuy indi ay xissa lenn waaye ne man bi ma amee jafe-jafe wala bi ma feebaree damaa ñëw fii rek wir ndeysaan wala nga dégg keene man damaa woo waaj rek waxuma la sax mais dafa dafa ñëw jaxaran léeg-léeg nga dégg ci mbir yi doy waar te loolu yëpp xamuñu ne iblis moo koy def nit dina laaj waaw loolu nu ko nit iblis di defee loolu loolu tontu ko yomb na ñun ñëpp iblis a nu mag wala iblis a mag sunu maam aadam ñun ñii ñëpp ku nekk iblis mën na jël sa melokaan wala ma sama ak sëriñ mën ngaa woo kenn ci ñoom iblis indi melokaanam ñoo wuyu la looy jàpp yow kan moo la wuyu si ki nga woo fekk kooku yaa yaa gën a tey na xam nga ne def dee na ñëwul yaa ko tey mais iblis moom deewul di moom mu ngi fi di te moom mun na jël melokaan waa ji mun na jël sama melokaan mun na jël sa melokaan mun na jël melokaanu keneen rawatina nag kii nga xam ne moo fi nekkoon nekk kilifa diine ba nit ñi di bokkaale ci moom parce que lan moo intéresse Iblis mooy nit ñi bu ñu bu ñu am tawxiid nañuy bokkaale ba xëy dee. am na benn waay boo xamante ne dafa ne kilifaam wallahi oto bi bu mu këppee dama laa woo mu taxaw te kilifa gi dafa accidenté tànk bi ñu dagg ko wallahi lazim wallahi lazim wallahi malaaka yaa ngi sama mbagg kilifa googu mu woowoon ne ko wallahi dama la woo oto bi taxaw wallahi kilifa googu dafa dugg oto oto bi këpp tànk bi képp daal di dagg ba fii may toog benn tànk la kon kay xam nga ne bu fekkoon ne kilifa googu mun na dara defal ko boppam waaye seytaan mooy réeral doomu aadama yi te wax na ko te moom du tekki ngembam même mbiru yenn saa yi nga dégg ñu ne nit feebar di woo nit naan mi ngi nii di wa ngi nii mu ngi nii taxaw te kookoo ngi këram di añ mais seytaan mooy jël melokaanu kooku ñëw taxaw ci kanamu kii di ko tiital su ko defee mu naan diw moom ay tiital mi ngi nii waa kër ga jàpp ne diw moom dëmm la moom moo ñëw fii di parce que léegi-léegi wax na ko moom la gis moom la fekk waa ji yëgul yenn saa yi dañuy fekk dem këram rek fekk mu toog ñu dóor ko mu dee yow la nga naan du yow yow yow la daal di koy dóor ay kuur ba waa ji dee fekk waa ji yëgul tinul ci erreur bu rëy lañ ko rey te nag dëkk boo dem ñu fay tuumaal ni dëmm ñett ñi kese la ku ñu gisul say mbokk ku amul alal kër ga gën a ñaaw ci kër yi ku fa gën a sonn koñ ba yow yaay dëmm bi waaye patron bi fa am 4-4 kenn repp lu ma naan ko dëmb nga dañ wax dëgg étage bi fa gën a kawe kenn reppul ba naan ñi ay dëmm lañ mais kër gi fa gën a ñaaw ñi fa gën a sonn ñi ñu xamul seen mbokk ku fa feebar ñu ne ñii ñoo la lekk gis ngeen loolu tooñ la ah kenn du sot mais ku ñu xam ne procureur général seen nijaay la kenn du leen laal c'est ça loolu mooy wax ci seytaan mooy jël yenn saa yi melokaanu ñenn Abdul Qadir Jeylaani yaa ngeen histoire am seytaane feeñu na ko ci ay lumière ne ko maay sa boroom bis ni ki tey lépp lu ma araamaloon ci yow dagan na mu ne ko yaa mën a fen yëf yi fay après mu ñëwaat mu ne ko noo xamee ne du yàllaay wax ak yow mu ne ko yàlla dene maa yu baddalul xawlu la dayya li ma waxoon du changé mu ne ko pourtant sa moroom yu bari fii laa leen jaar ñu bëri fii laa leen jaar feeñu leen ne leen maay seen boroom nangam ak nangam ñu gëm ma mu ne ko man nag bokkuma ci gis ngeen loolu du jeex du jeex jàng ngeen histoire yonent yi ayub est-ce que seytaane feeñuwu ko di rey ay doomam di rey njabootam di lakk ay toolam ibrahim ndax seytaane feeñuwu ko lan moo indi sànni jamra ah waaw kon nag mbokk yi wax dëgg yàlla bu fekkee ñooñu la seytaane sunu ponkal yooyu la seytaane di róofool di leen yenu di dóor ci mosama ak ñun cumbur yu dee yi kon dara taxul tey nit ñi weddi yàlla lu dul bóof bi ñuy bóof ci bàmmeel yi jàpp ne jëf ju baax la loolu kese la fukkeel ak ñaar mooy maarifatu nahyi an tamasil wal xikmatu fi izalatiha lan mooy njëriñu ñu xam lan moo tax yàlla tere ñu gàllaaj gàllaaj tey ñu bëri gàllaaj moo tax gëmuñu yàlla waa ji di xëy nga xam ne mi ngi woon ak ak ay gàllaaj mu dawal otoom walla mu dugg ci oto oto bi daw tuuti lu soriwul këram mu ne nii ndigam gisul gàllaaj yi mu ne nii loxo yi gisul gàllaaj gi fekk oto bi moom ci boppam moo koy dawal nu muy def bu fekkoonte ne fayagul paas nu muy def chauffeur mu ne ah mu ne ko taxawal mu taxaw mu daal di waaj dafa am lu ma fàtte fekk gàllaaj yi la fàtte kon gàllaaj dañoo war a xam li tax ñu koy tereeg jullit day tax sa xel du dem ci yàlla day tax doo def benn ñaan day tax doo def effort pour jàng parce que lan da nga naan maa ngi takk gàllaaj jeex na maarifatu an nahyu ani tamasil lii moo tax lislaam tere ñu ko gàllaaj benn waay bu ma bokkal koñ mi ngi dund ba léegi yàlla na ko yàlla gindi dafa accidenté oto bi bërëngu bëri amay gaañu gaañu bi ñu yégee loolu nit ak mbokk dëkkandoo mu dem hôpital am nay tëccu tëccu yaram génn ñëw nit ñi di ko ziar si bi ma ñëwee xam nga lu ma wax oustaz ma ne ko mu ne ma yéen da ngeen di contre gàllaaj waaye wal bu ma gàllaajuwul woon damay dee yéen da ngeen di contre gàllaaj nag waaye dama lay wax de gàllaaj am na de gis nga bu waaye man xoolal oto bi bu ma gàllaajuwul woon xam nga ne kenn waxatu ko ndeysaan ma ne ko ah est-ce que yaakaar nga ne gàllaaj yi la musal mu ne mooma musal ma ne ko ya- li ma jàpp man mooy yàlla la musal sa dee moo jotul gàllaaj yi mënul la dara mais xoolal moom mënut a gëm ne yàlla moo ko musal loolu la yàlla di wax ci quran ne wa iza rakibu fil fulk daawu llah muxlisina lahu ddin fa lamma najjaahum ila al bar fa iza hum yushrikun bu ñu nekkee ci oto wala ñu nekk ci bato wala ci avion mu yëngi-yëngi ñu tudd yàlla bu ñu amee liberté yàlla rëccal leen bu ñu ñëwee ba suuf ba toog ba xam ne toog na ñu ngi ci suuf si rëcc nañ nga dégg ñu ne che chauffeur bi moo mun dawal wala capitaine bi wala sëriñ bi wala ki ma woo wala fekk dara du ñooñu yàlla kese la billaahi yàlla la du kenn ku dul yàlla dafa am benn xale bu jigéen bu jógee benn dëkk ci dëkku arab yi dem Londres jàngi bi mu demee Londres jàngi benn bis mu génn seeti benn xaritam ni mu demee toog di waxtaan ak kooku yëgul ne guddi gi xaaj na xam nga rek ambiance bi lumière bi xumb xumb bi yëgul ne guddi gi mu ngi bëgg a jeex mu xool montre am yëg ne guddee na mu ne ñooñu maa ngi ñibbi ñooñu ne ko déet xanaa gisoo heure bi mu ne leen waaye foog ma ñibbi parce que tàggoowuma woon fanaante bu ma fi fanaanee ñi ma nekkal seen njort day yàqu ci man parce que jigéen du fanaan àll ñu ne ko mais heure bii ku fi génn dañ lay rey yow xam nga lool fii Londres heure bii ku ko génne di dox dañ lay rey mu ne leen non comme dernier métro bi demagul bàyyi leen ma jël ko ñu ne ko boobu moo gën a dangereux parce que chaque jour nga dégg rey nañ ci nit te dernier métro bi la ñuy reyaate mu ne al almuhim damay def tawakkul ala allah bàyyi leen ma dem ñu gunge ko mu ñëw dugg ci gaar bi jënd ticket toog benn nit la fa fekk benn nit la fekk ci gaar bi mu toog nee na mu ñëw toog kooku toog affaire bi gaare kooku yéeg toog ci kanam moom mu yéeg ci ginnaaw ñoom ñaar tëndaw nee na fi mu toog bi mu xoolee waa ji dafa tiit mu commencé di def ay azkaaram di jàng alquran yenn ci aayu musluwaay yi muy jàng di jàng di jàng di jàng di def azkaar di jàng di jàng di jàng ba métro bi yegg fi muy wàcc mu wàcc muy jàng di jàng di jàng ba egg këram bi ñu ubbee bunt bi mu sonné ñu ubbi bunt bi mu dugg sujjóot sant yàlla dem tëddi mu xëy suba huit heures taal taal bi rek mu gis journal ñu ne ko dernier métro bi dañ cee rey benn xale bu jigéen mu tiit mais c'est pas possible mais bi ñuy jeexal information bi ñu ne jàpp nañ ki rey fa ki rey ki rey ndaw si rek moom mu wax ko waa këram ñetti leen feenam bi mu ne leen nag léegi dama bëgg ngeen gunge ma ñu dem police bi ñu ne ko loo ko lan la mu ne dama bëgg a xooli ki rey faam bi mu ñëw bi mu ñëwee ba ci biir police bi laajte ñu won ko commissaire bi mu wax ak moom ne ko dama bëgg a gis ki rey femme bi kooku ñu ne ko pourquoi mu nettali leen seenam fi mu jaar ak ni mu ñibbee ba mu ba mu yëg rey nañ femme bi dafa bëgg a xool ki rey femme bi kan la ñu ne ko d'accord parce que loolu tamit moom dina leen indil témoignage ñu xam ne su fekkee waa ji la ñu xam ne moom la mu ne mu dugg ñu ubbi rek muy waa ji ki mu bokkaloon métro bi léegi nag lan mooy problème am mu ne waa ji mais yow yow maa yow ñoo bokkoon dee métro bi waa ji ne ko waaw dëgg la kay mu ne ko xàmmee nga ma mu ne ko waaw xàmmee nga ma mu ne ko mais lu tax reyoo ma mu ne ko ii yow bi nga yëg ñaari ponkal ñoo nekk sa wet ñaari ñu ngand ii ñe moom wala woon sa xool ndeke ay malaaka ñoo doon garder femme bi femme bi ne ko lan mu ne ko ay ponkal ñoo toogoon sa wet ii ñe moom la woon sax sigg xool la moo tax après ma ma ma bi ma demee bi nga wàccee ma ñëwaat xaar métro bi dernier métro bi ñëw kii dugg ma rey ko femme bi sujjóot foofu moo tax nit day def inskaaram def tawakkul ala allah xoolal kooku lan moo ko musal yàlla léegi bu ne woon benn sëriñ la rek ah gaa jaari ngandal sëñ waaw bu doon fi Sénégal la nga dégg mu ne diw la ñu ne ko diw la gaa yi commencé yooyu xam ngeen yooyu li moo moo alak nit ñi kon mbokk jullit yi fekk wallahi du dara yàlla kese la nit alquran moo ne waman yatawakkal ala llahi wasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la billahi lazi la ilaha illa imaan yi rek a des waaye bu ñu jàppee ci yàlla yàlla doy ñu ku yàlla doy lu lay doy ku yàlla doy lu dara mun la doy kon war nañu xam maarifatu an nahyu an tamasil lan moo tax ñu tere ñu gàllaaj yeeg xaaw yeeg ndomba yeeg petaaw yeeg lam yeeg wal xikmatu fi isalata wala nañoo xam aussi lan mooy xereñ gi nekk ci li tax ñu tere ñu ko nit war ko dindi mooy dalay yóbbu safara dalay weddiloo yàlla dalay def bokkaalekat fukkeel ak ñett maarifatu sa'nu hadihi al qissa mooy histoire yi ñuy nettali histoire yonent yàlla noo jamonoom gaa yu baax yooyu nga xam ne faatu woon nañ nit ñi daal di ñëw jël seeni estati seeni photo samp ko war nañoo xam histoire yu mel noonu pour ñu mun koo natt ci sunu jamono pour ñu mun a rëcc bokkaale yooyu gaa yi daloon gaa yooyu la wa siddatil xaaja ilayha ma al ghaflati anha te kat xiste yooyu liñ leen di xam xam xam xam nit ñi tey aajowoo nañ leen bu baax waaye dañ koo saagane ndeysaan xoolal boo jàngee saaru noox saarum lëmm la ci yàlla wàcc ay aaya yu takkarnaase wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala thuwaan wala yaxuutha wa yaxuuqa wa nasran yàlla mu ne waqat adallu kasiran wéer nañ lool nit ñaa ngi koy jàng guddeeg bëccëg jàkka joo dem ak téere alquran boo ubbi foo mënta dem waaye ndeysaan nit ñi seen yoon dañ koy jàng ba rek kenn du ko jëfe waa ji mën na koo jàng léegi-léegi génn bokkaale ji allahu subhanahu wa taala dugg ci xërëm yi wala mu dugg ci bàmmeel yi wala mu dugg ci gàllaaj ji kon jàng gi ñu koy jàng ban njëriñ la ñu am mbokk jullit yi jàng bu ñu koy jàng ban njëriñ lañ ñu mujj amal mujj ñu amal benn njëriñ parce que alxuraan dafa ñëwoon pour leeralal ñu lu ñuy jëriñ fan la ñuy teg suñu tànk bu fekkee léegi dañuy jàng alxuraan ba pare di dugg ci kàmb yi ban njëriñ la amati fukkeel ak ñeent waxi ajab wa ajab kéemtaan la gu rëy rëy kéemtaan ci biir kéemtaan da nga war a waar waar waat qiraatuhum iyaha nit ñaa ngi jàng téere bi di jàng qissa yi fii kutubi tafsir téere yaa ngi koy tafsir wala hadis hadis yaa ngi koy nettali waaye nag kenn jëriñoowu ko kenn jëriñoowu ko wa maarifatu bi maana al kalaami nit ñi xam nañ wax ji ni mu leere ak ni mu nee weng waaye kenn jëriñoo ko wal kaw wa kawnullahi xaala baynahum wa bayna qulubihim li ko waral nag nee na borom bi subhanahu wa taala moo dox seen digganteeg seeni xol moo tax duñ ko jëriñoo xol ya xamaat xol yi ñoo yàqu looloo tax tey am na place yooyu toog di fa wax lu mel nii sax da ngay am jafe-jafe benn ci jumaa yi may jiite tey dañ maa woo dama vendredi bi di ñëw kuy jiite leen maa fay jiite nee na boo ñëwee na nga def attention de parce que vendredi bi passé ki fii ki fii doon jiite dafa am lu mu fi wax kon nag yow mii ñëw da nga def attention gis nga gis nga boo ñëw daal da nga xam li ngay wax ndax jàkk ji mer nañ tension yi monté na ndax man leen lu xew ñu dafa am koo xam ne moo fi doon jiite vendredi passe dafa am lu mu fi wax man leen waaw ba vendredi xalaat loolu nit ñi bëgguñu ku leen wax dëgg yàlla bi boo waxee dëgg rek ñu ne kii def ñoo yab boo leen jayee nag nax leen wax leen caaxaan ñu génne seen xaalis jox la daal lay ñaanal ne la yàlla na fi yàgg te wér waaye dëgg bi déedéet moom kay bu kenn wax mbir bu araamee wala mu nekk bidaa wala mu nekk shirk bokkaale est-ce que nit amul droit wax ko yàlla bu araamalee mbir nit amul droit ne araam na bu yàlla ne mbir mi bokkaale la ja kenn du ko wax bu boroom xam-xam yi ne lii bidaa la kenn du ko wax boo ko waxee ñu ne dag ñoo yem moo tax ne leen yàlla wan dëgg mu wërsëgal li ñu topp kon li tax doomu aadama yu bari du ñu gindeeku ci dëgg mooy yàlla moo kaste seen xol yi du ñu xam du ñu dégg-dégg ndax yàlla moo dox seen digganteeg seenu xol hatta itaqadu anna fi'lu qawmi nuux afdalu ibada xool am na ñoo xam ne tey jàpp nañ ne loolu nit nuux yi doon def mooy bóof ci bàmmeel yi loolu ak a baax waaye loolu dara nekku ci waaye waaye bu la ñu sonal loolu dara nekku ci boo demee Iran fekk ñu bóof ci bàmmeelu Ali ak bàmmeelu Hussein boo demee fële fekk ñu bóof ci bàmmeelu diw boo demee fële fekk ñu bóof ci bàmmeelu diw waaw boo demoon Medina fekk ñu bóof ci bàmmeelu yonent bi sax amul njëriñ parce que yonent bi moo ko tere lu yonent tere ab arab def ko wala ay nit def ko wala borom xam-xam def ko taxul mu dagan parce que yonent moo ko tere xanaa nit ñi loolu lañ xamul su yonent tere dara loolu daganul ay bàmmeel kenn du ci bóof attention kenn waxul bu kenn ziyaara ji bàmmeel waxuñu loolu de bóof ci bàmmeel ak ziyaara ji bàmmeel du benn nit mun na ziyaara ji bàmmeel yonent bi moo ne woon tere naa leen ziyaare armeel yi dem leen ngeen ziar ji ko parce que daf leen di fàttali dee mais waxul boofu leen fa nga ñëw ci bàmmeel simmi sa mbax ne simmi sa dàll ne ngoppoñ sa ñaari óom ah tàmbali jooy tàmbali tàllal sa loxo loolu loolu loolu musiba la kenn du ko ziare bàmmeel ki fa tëdd doo ko ñaan mais da nga koy ñaanal kon kenn waxul bu kenn ziare ji bàmmeel waaye dañu ne ay bàmmeel kenn du fa boof bàmmeel kenn du fa summi mbax na ñëw ci bàmmeelu nit summi mbax na bi loolu bokkaale dëgg la te boo duggee ci jàkka doo summi sa mbax na loolu bokkaale la ay bàmmeel kenn du fa dem di toroxlu parce que du place bu ñuy toroxloo dem fa ngur ngur fañ sa ñaari óom ci suuf wala sax ngay raam wala ngay jooy di yuux di toroxlu di ñaan loolu kenn du ko def ci ay bàmmeel loolu la ñuy tere loolu bokkaale la ku am aajo booy ñaan jàppal nga julli ñaari ràkka nga ñaan yàlla bu fekkee yàlla doo nga bëgg ñaan wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata da iza daani yàlla dafa jege boo ko wooyee mu wuy la kuy ñaan ñaanal yàlla iza saalta asalillah booy ñaan ñaanal yàlla waaye dem ci ay bàmmeel di jooy di ñaan ah damaa feebar damaa bëgg a wér damaa ñàkk damaa bëgg a am damaa bëgg a tukki damaa bëgg takk soxna damaa bëgg liggéey loolu kenn du ko ñaan ci ay armeel bokk na ci laal ak nit ñi mooy dañoo jàpp ne dem ci di di bóof ci bàmmeel lu baax la ñu jàpp ne wa ataqadu annama naha allahu wa rasuluhu fa huwa al kufrul mubih li dam wal mal boo ne nit araam ñu ne loolu araamul xam nga lu ñu tere mooy weddi yàlla goo xamante ne boo weddee yàlla dagan nañu rey la loolu lañ tere waaye nga ñëw ci ku baax kii tëdd fii ku dee nga ñëw ne yàlla may ma ci barke ku baax kii loolu dara nekku ci waaw léegi laaj bi mooy ku baax kii ndax barkeem bëri na ba mu mën cee maye loolu mooy wax ji ndax yow xam nga kii am na ci barke lu baax lu bëri lu mu dajale ba moom bosam doy mu mun a maye ci bosam du kii ñaan danaan may ma ci barke kii wala du loolu ñu wax léegi ki tëdd fii ndax bëri na barke loo xam ne mën na cee tibb maye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na barke wala amul barke waaye doyul loolu moo tax bu ñu waxee muhammad ñu ne sallallahu alayhi wa sallam loolu muy tekki mooy yàlla na ko yàlla dolli kon doyul gis ngeen bu fekkee muhammad doyulul nag kan mooy doyal loolu mooy sallallahu alayhi wa sallam mooy yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko te moom bu fekkee ne moom doyalul kan mooy doyal ah tontu bi mooy kenn sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kon nañu xam ne bokkaale musiba naarullahi la fi muy yóbbu nit dalay yóbbu ci nga gumba tëx lu muuma ki ko wax te yow doo dégg waaw fukkeel ak juróom mooy at tasrix bi annahum lam yuridu illa shafaa léeg-léeg nga dégg kenn ci ñiy bóof ci bàmmeel yi soo ko laajee ne ko waaw yow li ngay def ni diine da koo tere mu ne wallahi ki tëdd fii moo may ràmm yowmal qiyaamati am na ñu koy def defuñu ko lu dul yaakaar ci ñooñu ñu ràmm leen xoolal am na ñoo xam ne tey alal ju dagan seen yoon nekku ci ñoom daal nañu am rek bu bëree ñu ñëw jox ci kilifa gi waaw ne ko sama sama kii ngi nii léegi kilifa gi ne leen amul problème amul problème yow daanaka sa mbir baax na dama nga toog gis nga léegi jàpp nañ ne loolu ñuy jox kilifa gi moo tax kilifa gi day intervenir ëllëg ca yàlla ne bàyyil ñii te jàngeen ci lax daani ñu ne al aklu bi shafaa dafa haram mooy kuy lekk alalu nit ñi ngir dig leen ramm daa haram lax dari sax da ko tere jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne ëllëg wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaatiya yowmun laa bay'un fihi wala xullatun wala wala shafaa wal kaafiruuna humu zaalimun nga doog a tari ayatul kursi jàngu leen loolu joxe leen seen alal bu ngeen amee lu ngeen di joxe joxe leen ci li leen yàlla wërsëgal balaa bis boo xam ne mi ngi ñëw amul summiiku amul jot sa bopp kenn du la ràmm yàlla nee na keroog yéeféer yépp ay tooñkat lañ wal kaafiruuna humu zaalimuun borom xam-xam yi bi ñuy firi aayoo dañu ne sant ñeel na yàlla ba mu waxulee tooñkat yëpp ay yéeféer lañ waaye dane yéeféer yi ñooy waaye bu ne woon tooñkat yi ay yéeféer lañ kon ñun ñëpp ñu musiba dal ndax ñun ci tooñ yàlla guddeeg bëccëg lañ nekk kon nañu xam ne ay nit a ngi nii yoo xam ne dara taxul ñu bóof ci bàmmeel yi lu dul yaakaar ci bàmmeel yi ak ramm borom bàmmeel bii de baax na baax goo xam ne wala sell na sell goo xam ne wala jaamu na yàlla jaamu goo xam ne wala taqoo naag yàlla wala xaritoo naag yàlla xaritoo goo xam ne ëllëg mën naa làqatu ci ginnaawam li ma bëgg ma am ko fukkeel ak juróom benn zannuhum anna al ulamaau allazina sawwaru aswar araadu zalik ñeneen ñi dañu yaakaar ne boroom xam-xam yi nga xam ne seen jëmm lañ jël def ko ci barab yooyu boroom xam-xam yooyu d'accord nañ ci wala dégg ñoo yëguñu ko tey sunu réew mii musiba yi ñu fi def nii est-ce que sëriñ yi sëriñ yu mag yi fi nekkoon fekk xam nañ ci dara fekke nañ ko ñoom seen dund lañ mënoon tere tere nañ ko lu bon lu ñu gisoon tere nañ ko da ngay dégg loolu ñu ñu la koy wax mais gis ngeen tey am na yoo xam ne moom dañ koy def da nga yaakaar ne sëriñ bi moo ko santaane wala kilifa gi moo ko santaane te kilifa gi yëgul tinul moo tax ci ñuy jàngale war nañ def attention bu baax balaa ñuy bañaale waa joojule ndax ñii ndax kooku defu la dara yow waxu la dara bu fekkee yonent bi la ñuy fenal ma sama kooku wala wala bu fekkee yonent bi laax la ñuy fenal ma sama kii fekkee yonent bi lañ waxal lu dul dëgg ma sama kii sànq dama nekk ci oto jëm yoof ki ma dendal mu may nettali benn histoire bu mu bu mu fekke woon gars yi ne ko ñuy waxtaan ci benn mbiru sëriñ rek benn waaye ne wallahi kooku du du nit kooku malaayika la moom du nit nit ñi ñoo naan nit la mais malaaka la waa ji ne ma toog ba ci yàgg affaire yi mënuma koo muñ rek mu ne ma indi leen benn waxam ma wax wax ji ñu ne ma firi ko ma firil leen ko ma toogaat ba ci yàgg ma indiwaat ni mu tuddee boppam ma ni yéen lii ngeen wax nii ak moom li mu wax dafa dàqonte beneen bi moom moom dafa am papa am yaay moom da doon lekk te malaaka amul papa amul yaay malaaka du lekk du naan te moom da doon lekk di naan am papa am yaay am ay jabar te li malaaka amul bari yéen ngeen ne malaaka mën nañu commencé naan waaw xam nga yëf yi ay déggin la déggin man déggin moom waxul man malaaka laa yow nga bëgg ne moom malaaka la gis nga te moom ci boppam waxul loolu loolu di ngeen koy gis fi kon nañu xam ne nañ def attention bu baax ñenn ñi bëgg dépasse takk seen rajo ci mbedd yi di wax loo xam ne di waxu ci dara nañ la buñ leen buñ jaaw buñ tax ñu ñu yéegal mbir mi baru bañ kilifa googu fekk kilifa googu moom la mu doon la mu mënoon wax na ko la mu doon jàngale jàngal na ko la mu doon bind bind na ko la mu doon def def na ko moom dem na yoonam bu yàgg tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat yéen wala kum maa kasabtum wala tusalunna illa maa kaanu yaamaluun ñoom lañ defoon wees na ñun kenn du ñu laaj ñoom lu ñu defoon ñoom kenn du ñu laaj ñun lu ñu def ñun kenn ku nekk li nga def lan lay laaj waan laysa lil insaani illa ma saa kon loolu tamit nañ ko bàyyi xel bu baax am na nit ñoo xam ne dara taxul ñuy créer ay wax ak fent ak wax ak sos lu dul bëgg lu nu am parce que xam na ne fu ñu ko wax am na benn dox bu mel na ñoom bu leen di jox 10 000 wala saaku ceeb wala 4-4 su ko defee ñu ut wax yu bëri yu mel noonu nag teg ñu ñu ñu fanaanoo wax rek nit ñi di yuuxu di leen di leen jox ñuy yóbbu seen kër fekk dara du ci dëgg dara amu ci yu ci bëri ay waxu kese la ki ñuy wax kilifa ga ñuy wax waxu ko yëgu ko tini ko loolu nañ ko bàyyi xel loolu dañ ci at bu nekk ñu créé lu bees at bu nekk nga dégg lu bees xam nga ne te am na yoo xam ne sax waxuma la kilif mais dañuy jël yenn saa yi waxu yonent bi daal ko koy askanale man gis naa ay waxu yoo xam ne waxu yonent bi la ak bëri wala ay waxu borom xam-xam ñu jël ko di ko askanale fekk moom waxu ko waxu borom xam-xam yi la yu yàgg wala waxu yàlla la woon ñu jël ko di ko di ko wala waxu yonent fukkeel ñaar fukkeel wala fukkeel ak juróom-ñaar al bayaan al azim fi qawlihi mooy dana jàng ci leeral gu rëy gu yonent bi leeral fii ne la tatruni kama atrati nasara ibnu mariam gis ngeen bu leen ma jay comme chrétiens yi ni ñu jayee si gis ngeen waaw yonent lan moo tax mu jékki-jékki ne saxaaba yi bu ma bu leen ma jay du tax ñu bañ a ëppal yonent alayhi salaatu salaam dafa réussir lu genn wàll yonent yi ak boroom xam-xam yi réussirul mooy lan yonent bi amoon na cent vingt quatre mille saxaaba mais déggoo ku ci débarré naan ko yow yaay yàlla wala yow doo nit yow déedéet gis nga moom lu tax parce que saa yoo bëggee tarxiis mu delloo si la teg la ci raay moo tax nga dégg mu naan ñi ñëwoon sax naan ko anta sayyiduna def ko def leen ko tere ñi ñëwoon bëgg ne nangam def leen ko tere as sayyidu huwa allah ñii ñëw bu ko jay mu ne leen bu leen ma jay innama ana abd fa qulu abdullahi wa rasuluhu kon mbokk yi du hasard yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jàkkaarloog ñi gën ci xeet yi mooy sahaaba yi naan leen bu leen ma jay bu yonent waxee lii sahaaba yi kon keneen waxi noppi te tey yéen ñëpp xam ngeen ne gars yi dañ leen di jaay rek wallahi xam ngeen dañuy jaayate rek waaw waaw gars yi nag am na benn xale bu jigéen nee na nit ñi dañoo mën a jaayaate mu ne te kuñ ci jaay nga jóg jógu beñe xam ngeen beñe beñe boo ko sànnee ci taal bi nu muy def day funki après jeex na freiné na kon nag war nañu war nañu xàmmee lu wér a wér a wér ñiy jaayaate ak ñiy wax dëgg Cheikh Nasiruddin al Albani rahimahullah dafa mos a jàngale xadis yonent bi alayhi salatu wasalaam ba fa toog nii rek benn taalibam ne ko sëriñ bi mu ne ko ah mu ne ko tey ci addina bi penkook sow li ñu jàpp mooy xadis de yaakaar nañ ne yaa fi raw tey li nga fi xam ci xadis kenn xamu rek sëriñ bi ne alhamdulilahi rabbil alamin xadis yëpp jéem naa leen a dund bii rek moo ma ci manqué woon mu ne ko ban rek mu ngëb suuf rek ni ko ko sarax ci gémmiñ gi ne ko yonent bi ne na bu ngeen gisee ñiy taggaate na ngeen leen xëpp suuf bii moo desoon gis nga fekkoon na ñi ñuy jay fii noonu la ñuy def kon suuf du des seen saal yi lépp dinañ ko tibb xëpp ko gaay ndax da ngay toog suba ba ngoon lu la neex rek lan lay wax di la jaay rek lu ne ñu wax la ko te yow yow xam nga ñoom xam nañ yàlla xam na balil insaanu ala nafsihi am na imam ahmad nee na dama jaar ci marché bi may dem rek ma dégg ñu naan kële mooy ahmad du nelaw guddi kële mooy ahmad du nelaw guddi mu ne keroog laa gëj a nelaw guddi am na ci borom xam-xam boo xam ne fii la nekkoon ci réew mi benn waaye dafa jënd pañe guro ñu ne ko sëñ bi dégg naa guro rek nga bëgg mu ne araamal naa ko man ndekki am na leneen lu ñu may jaawale moom laa bëgg lu dul yàlla araam na ci man dootuma ko lekkati gis nga kon ñooñu dàq nañ ba sonn waaye gis nga nit ñi mu yaa defoon lii asamaan bi muy waaj a daanu moo ko téye woon fële ban fa demee moo si kenn xamul yu xam ne ah yu terre à terre yoo xam ne xam xam ne ki koy wax sax xam ne li amul da ngay dégg ñu ne diw fekke woon na Badr tukulóor yi moom ñeme naa leen da ngay dégg ñu naan sayku Umar xabaama walde Badri wallahi omo ɓorni wutte wutte tekk omo wacc omo waɗɗi puccu njarlu la ilaha illallah yu kenn xamul yoo xam ne dara amul Cheikh Omar fu mu fekkee Badr Cheikh Omar juddoo Sénégal bal Badr fan la woon yooyu ñoo bëri ci réew mi di jayaate di jayaate di jayaate di wax yoo xam ne dara dara dara dara amu ci dara amu ci dara amu ci li ko waral mooy jayaate loolu moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu pour mu ji mucc ci mooy dafa dajale saxaaba yi ñëpp toog mu ne leen bu ma kenn jay mbokk yi fukkeel fa salaatuhu fa salaatullahi wa salaamu alayhi ala man ballaga albalaaxul mubiin fukkeel ak juróom ñett mooy nasiixatun iyaana bi xilaakil mutantiin moom yonente alayhi salaatu wasalaam laaya biir gum ñu laaya biir nañu moytandiku di ëppal ëppal mbokk yi ëppal baaxul ci dara lekk sax boo ci ëppalee musiba dal la nelaw boo ci ëppalee musiba dal la ëppal moo baaxul ci lenn lu ne nekkal ci digg bi nekkal ci digg bi liggéey jaamu yàlla lu mu mën a doon bul ëppal yonent bi saa salaam nee na ñi ëppal alkunan ci jaamu yàlla bul ëppal ñetti nit dem nañ kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam di laaj ñu muy jaamoo yàlla ñu ne leen ah moom day day nelaw guddi après mu tëdd après mu jege ay soxnaam yenn saa yi mu woor dog ñooñu ñu ne ah yonente da lu ko neex def ndax yàlla baal na koy bàkkaaram kenn ki ne man dootuma jege jigéen pare naa ci ma jigéen ñëpp lay fase keneen ki ne dootuma nelaw guddi keneen ki ne dootuma lekk bëccëg damay woor rek ñooñu loolu ñu wax diine la wala du diine rafet na wala du rafetul xel nangu na ko wala nangu yonent bi daf leen woo ba ñëw ne leen li ma li ma dégg yéen a ko wax ñu ne waaw mu ne maa leen gën a ragal yàlla damay naafi la bu guddee ma tëdd ma nelaw damay war bëccëg léeg-léeg ma dog sama soxna yii dama leen di jege man raxiba an sunnati fa laysa minni li ma indi ku ci d'accordul bokkoo ci man gis ngeen munoon na leen wax ne man du ma nelaw guddi soxna yi damay bind damay ñaan ci ndox mi rek jox leen ñu ëmb loolu da nga koy dégg fii ñu naan ñu naan moom daawul kii soxna yi ay saafara la bind rek ñoom ñëpp ñu ëmb nga yooyu yëpp dof la loolu sax lu lu ko yóbbu foofu yenn jayaate yi tuutil nit ki la kon saafara mooy ëmbal jigéen ban aaya la saafara boo xam boo ko joxee jigéen rek mu ëmb ma ne nit nit nit rek la góor góor la jigéen jigéen la sëy dafa ara dagaanu ara araamul dafa dagan su araamoon yàlla du ko sant yonent yi du ko sant jaamam yi kon nag ki koy def du dafa salte du dafay daf koy mànkeel waaye jaamu yàlla ci moom ibaada la yonent bi ba mu nee saxaaba bi même dànk bi ngay dànk di jox sa jabar dañ la ci bindeel tiyaaba mu ne wow yonent bi ne ko ah xanaa da nga cee waaru mu ne waaw mu ne boo ko defoon feneen mu ne ah loolu de dafa araam mu ne ko du bàkkaar nga yem kon boo ko defee fi am tiyaaba kon nag jaamu yàlla la waaye gis nga nit ñi dañ koy jombale ay nit ah di leen ko màggloo wala te yonent yi def nañ ko bu araamoon yonent yi duñ ko def ban yonent ngeen gis boo amul soxna lu dul bu dencul waaye bu ne man sëy dafa araam ci man amul fenn ñi ci dencul yépp seen dunda gàtt ñu mel ne ñoom Isa ak ñeneen ñi seen dunda gàtt dan waaye ñi ci gudd fan ñëpp am nañ ay soxna amay doom am na ñoo xam ne sax bi leen yàlla yéexee may doom dañoo dugg xalwa di ñaan ngir yàlla may leeni doom allahu akbar kon ixwaan yi fukkeel ak juróom-ñeent at tasrix bi annaha lam tucbad xata nusiya al ilm mooy ñun ñëpp na leer ci ñun ne xërëm yooyu estati yooyu ñu melal boroom xam-xam yi ba dem di ko jaamu xam ngeen loolu kañ la xew bi xam-xam bi réeree lan moo tax tey bokkaale am mooy xam-xam réer nit ñi jàngatuñ nit ñi jàngatuñ diine kenn jàngatul waxu yonent bi kenn jàngatul waxu yàlla xam-xam réer bi xam-xam réeree luy am nit ñi di jaamu yàlla di làmbatu ku nekk loo fekk say maam di def rek nga def da ngay gis koo xam ne danaan suñu wanag wii suñuy tuuraan fa ba kenn laal ko nga ñëw ci dëkk bi ñu ne xeer bi ci la bokk guy gii ci la bokk xar mi weñ wi lam bi gis nga waaw xoolal boo ñëwee Dakar ñu ne la lëg daawur mbay nga dem Bargny ñu ne la kumbalamba tëngëj ah tëngëj nga dem Kaolack ñu ne la mboose foo dugg ñu ne la ñu wax la benn turu jinne nga dem Gorée ñu ne la Kumba Castel bal bato bi sax salu bi sax moom lañ ko tuddee gis nga ñu ne la mooy rabu dëkk bi moo tax fii ngeen gis instant ñu ne dañuy ñaanal Ndakaar ay julit yuy jël ay nag di ko rend ci géej ah di wàcc ay kaam waxe ñu ne la ñun bokkaale wuñu ay kaamil lañu wàcce ah nit dina wàcce kaamil ngeen ne dafa bokkaale non kaamil yi dañ koo làqatoo làqatu la pour pour niñ tëj gémmiñu nit ñi waaye xam ngeen ne jullit bu jël nag dugal ko ci géej di ko rendi xam ngeen ne loolu du diini jullit bu jël nag yóbbu ko ba ci géej dugal ko ba ci biir ndox mi rendi ko bàyyi ko foofu ñibbi loolu ban diine la loolu yonent bi mës na ko jàngale nit ñi kenn mënul nax nit ñi alxuraan li mu jàngal dafa leer ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yooyu ci gën a tuuti yooyu ci gën a tuuti alxuraan yooyu yi gaa yi naan dañ koy wàcc non bu soobee yàlla bis ba dinañ wàññi dinañ wàcce juróom-ñaar fukki junni kaamil du dëgg benn kaamil jàngu ko rek sa problème benn kaamil laa woo ma ak juróom-ñaar yenn saa yi damay dégg rajo bi ñu ne waaw na ngeen ñëw ci gàmmu bi wala na ngeen ñëw ci màggal bi wala na ngeen ñëw ci ziar gi danañ fa jàng téeméeri kaamil téeméeri kaamil benn kaamil rek bi laay ñun ñi bu ñu doon jàng benn kaamil fii bu fekkee ne nañu jàng kaamil minute dinañu fekk ñun ñi laa wax ñëpp dañuy bëri ci jàng bu fekkee dëgg dañuy jàng kaamil bi kenn ku nekk ñu jox ko benn hisib gàtt gàtt minute dinañu fekk waaye ñi bëgg jàng téeméeri kaamil nag
surat Bakara sax soo koy ci téléphone bi boo jëlee une heure de temps et quelques heures.
waaw léegi xool leen rajo rajo rajo dunia day teg kaamil bi bu tàmbalee ñaata fan la koy def yi ñu ngi gars yi bëgg a ñëw rek téeméeri kaamil li waa ji di wax ak Yunus mu ne njàng mi seetlul neexul seetlul neexul mu ne dañ jànguñ dara wallahi dëgg la billahi lazi jànguñ da nga ciy dend ak nit nga xam ne kii jàngul mës naa fekkee benn kaamil duma ko fàtte mukk góor gi daa ñëw fekk ñiy jàng moom mujjee ñëw ñu jox ko benn jukki mu xool gisaar yu ngandi la mu teg ndékkiwuma de ñu ni ko ndékki mu ndékki ñun ñëw yëpp ñu ngi jàng mu jàng pare ñu ndékki ba mu ndékki ba pare ubbi ñaari minute daal alxuraan alxuraan ay dëgg xam nga di commencé di tëw alxuraan billaay alxuraan ay dëgg sama xol bi jeex ma pare rek daa dina nii juzu 30 bi doigt bi dañ ma ne ko am ma ne ko góor gi jàng ko jàngal ñu rek fi yaa fi mag jàng ko mu wax ma dëgër bopp mu dëgër bopp ma dëgër bopp yi fi diire ma xam ne kii jàngul dara mënu ko ñu jël sama sama rakk daal di jël affaire daal koy jàng li ma kii tamit ay li ngay def sama benn rakk ma ànd la daal di jël affaire bi jàng ko nga xam ne kon dañuy wax rek wax kese kese kese kese jànguñu tus dara lañ jàngul téeméeri kaamil la ñuy naxaati juróom fukki kaamil yi ngeen di dégg jànguñu dara billahi wallahi jànguñ dañuy naxaate du kaamil yee leen tax a jóg dañ ko bëgg a sëlëmi nit ñi yi ngeen di dégg ay ñaan fii ay nang du dara dañuy naxaate kese ku fi repp ba dem joxe say xaalis dañ koy yóbbu lekk ko tus lañ jàngul mu ngoog fukkeel ñaar fukkeel mooy anna sababu faqdul ilmi mawtul ulama xam ngeen sànq waxoon naa leen li tax musiba bi yëpp dal ñu mooy xam-xam bi moo dem xam-xam amatul léegi nag lan mooy sababu xam-xam dem luy sabab bi kan moo may tontu déedéet déedéet lan mooy sababu xam-xam amatul ci àddina bi déedéet ku ko wax dinañ ko jox benn buluuxul maram ku tontu loolu di nga am benn buluuxul maram bu ñuy fas yéene jàng mardi bii di ñëw xam ngeen ne fukki buluuxul maram a ngi fi waxoon naa rek duñ ko joxee nii nii la ngay joxee la ñuy laaj ku trouvé ñu jox lan moo tax xam-xam amatul déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet déedéet mooy boroom xam-xam yi ñoo faatu mawtul ulama faatu boroom xam-xam yi moo tax ja xam-xam réer suñ ne boroom xam-xam nag lan la ñu wax ci boroom xam-xam mooy ñuy wax dëgg bi ñun ñoo amatul boroom xam-xam yi nga xam dañ naan yàlla nee na yonent bi nee na jël jaas ji dóor ci digg bi man shaa fal yumin wa man shaa fal yakfur ñooñu ñoo amatul xam nga léegi ñu fi nekk macha allah xam nga mbir mi fa tabarakallahu moom daanaka rek kenn xamul lu nuy wax kenn du ko gis nga ñu ko defee ñooñu ñoo fi nekk affaire bi di lëndëm dara du leer yëf yi di suulu parce que ña doon wax dëgg dee nañ mawtul ulama musiba bi gën a rëy ci àddina bi mooy boroom xam-xam yi di faatu boroom xam-xam bu dee rek dégg ngeen ko waa jooju wax na ko malien bi mu ne Afrique saa yu boroom xam-xam dee bibliothèque am gis nga ñun ñëpp looloon dal tey ji ku dee rek boroom xam-xam bu dee rek sa kër dañuy indi kàggu yi daal di koy maye ndeysaan say doom duñ jàng bon sëriñ boobu gis te doomu ay rappeur da ngay gis ay doomu rappeur doomu gaynde doomu mbër doomu doomu doomu kenn du doonu téere yi kenn sax moo ñu ne kaamil bi de ci sama papa laa ko jële woon souvenir la mi ngi ni kaamil bi sama kaamil papa la loolu moo fi nekk tey ndeysaan ne leen yàlla yërëm kon mbokk yi lii mooy dars bi nga xam ne moom moo jeexal baabul xuluwu mooy buntu ëppal lii moo ko jeexal incha allah talaata bii di ñëw du am kitaabu tawxid waaye mu ngi am bulughul maram incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu aminu yaa